bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey jii mooy guddig ñaar fukkeel ak ñett naafile tey gi ñeenti rakkaa la rakkaa bu ne fatiha benn yoon ida jaa nasrullahi juróomi yoon xul wallahu ahadun juróomi yoon ma baamu ko ñeenti rakkaa la fatiha benn yoon ci raka bu ne ida jaa nasrullahi juróomi yoon xul wallahu ahadun juróomi yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi